nekkuñ fenn nga jaaxasoog ñoom te bëgg jëm fenn da ngay fo parce que mën na ne faaxiru shay illaa yu'ti ndax ñoom mënuñ koo yëbb sa jëmm ji parce que ko ci ñoom kon loolu ñëpp a ci am boo dee jigéen itam di sëy bëgg sëy bu barke da ngay xool jigéen di déggal borom këram te téye ab tànkam ngay fréquenté ak moom léegi tey rek nga mel noonu léeg-léeg nga am dikko joo xam ne sax neexu la waaye nga gis nit am dikko ju ju la neex lool dikko joo xam ne ji moom boo sañoon da nga am amul problème dee ko fréquente rek sooy jaxasoo moom rek bu yàggee jikko jooja nga yëm ci moom day nekk ci yow kon loolu nañ ko bàyyi xel baax a baax a baax moo ne wala tusaaxib in arta soxba da safahin aw hasadin aw raxba nee na soo bëggee bul fekk koo xam ne xel mi dara nekku ca ngay ànd ak moom bul ànd ak ko añaan bul ànd ak koo xam yépp ci àdduna ko jëmee suñu tubaa nañu mu ne wala tujaalis gayra man yurshiduka wa naai kulla saaxibin yuhlikuka ndax léeg-léeg da nga nekk ci yoon wu baax waaye soo changé garam place mooy génn ca la nga nekkoon doo léeg-léeg nga nekk ci kuréel gi sax bëgg xasida yi lool sa baat neex lool waaye soo tàmbalee ñi ci kuréel gi sooy tayal ci kuréel gi doo loolu nañ ko bàyyi xel léeg-léeg nga nekk ci kuréel gi am fa sëf loolu ñëpp naaw la ngay ànd ak gars yi dem ak ñëw kenn du la jiitu ci répétition yi buñ ne way nga way ko ba mu neex waaye bis boo tàmbalee change de fréquentation booy bàyyi prix bi doo koy da ngay toog rek gars yi naan ah mais sa waay soppeeku na li nga ne ah waaw non damaa xaw a jàpp rek fekk defoo dara ndax jot ga nga amoon ba léegi lu ba mat bàyyi xel suñ tubaab ay waxam dafa yéeme maanaam day jël benn baat bu la neexee nga xëy ci ba ngoon jot di ko jàngal kon nañ ko bàyyi xel baax a baax a baax a su ko defee nee na ku yàlla dogal jamono ji nga waroon a faag bu yëf raw la nga dem bam yag nga yëg na ah man kat may am ay 15 ans 20 ans xeyna amu woon chance kuma ma taxaw ma jàng wala taxaw woon nañ ma sax waaye ma bañoon a jàng neena du wess jàng du wess wa man tadaaraka alladi qad fata min allah wa ammara al awqaata bit tawbati nasuh wal iqbal ila al ilahi min ne ah bil kamal hakum nasihati lakum fatarbahu dunya wa ukhra maa qawmin aflahu suñ tubaa nee lii ma dénk leen nga xam ne dama koo coof rek nee na na ngeen ci bàyyi xel te xam ne ko jàpp sa adduna dana jag sa àllaaxira dana jag ndax laay biir li suñ tubaab wax dafa yéeme ndax su man nasihatu li ahlil baari xayru min al jihaadi bil kufaari suñ tubaab ne lii ma leen jox ay laay biir te laay biir moo gën sax dem di jihaadi sa noon su ko defee ñu waxtaan tuuti ndax wax naa waxtaane waxtaane dundug suñ tubaa gi mooy waxtaanee jëmmi xam-xam ak jëmmi bëgg xam-xam ñu tàmbalee ko rek ci cosaan ni ñu koy defee fi mu gënee jamono moom Cheikh Ahmadou Bamba suñ tubaa mi ngi gënee jamono 1853 wuute yi bëri na ci waaye bëri ci euh, mille deux cent soixante dix moom ñëpp d'accord nañ waaye bu dee ci atum tubaab bi ci lañ wute ñi ne mille huit cent cinquante deux ñi ne cinquante trois ñi ne cinquante quatre ba am na ñu wax cinquante cinq am na sax ñu wax cinquante et un bi mu gënee jamono Mbàkke Bawol ci roon ay wayjur yu tedd rëy wayjur yu baax Mamour ant Sali ak Soxna jaar Jaaratullaahi Mariama Bousso mi ñëpp xam ñu nekk fa tuuti ñu daal di Mamour Anta Sali fa ñëw Njaañ foofu ni ko Cheikh Mamour Bachir nettalee Balafré mu jox ko maamam sëñ Tafsir Mbacke Ndoumbé sëñ Tafsir Mbacke Ndoumbé sëñ Tafsir moom ak maami suñ Touba muy ñoom ñoo bokk ñaari wayjur mooy maam Astawalo maam Astawalo moom nag doonoon kàngaam loolu doonoon daanaan wala fan kat bi da ko wax maam Astawalo. yaay soxna jaara su dul ko nag moom kenn sampi daara soxna si fóore la danaa sol yére ya di tëralal donga ya mboolem téere ya kon suñ tubaab fi mu bokk ay kàngam lañ gannaaw ba bu nee ba mokkal wax nañ ne ci la Maba Jaxu Ba woote jihaadam jooya ci Saalum ñëpp dem suñ tubaab bokkoon ci ñi demoon ànd ak ña doon dem ndax booba mi ci sëñ Mouhamad Bousso sëñ Mouhamad soo mook soxna jaar ñoo bokk ñaari waajur yàlla dogal ah biñ demee Saalum ñu fekk fa waajur suñ tubaab ñu ngi nuyu bu baax suñu nijaay Seydou Anim ci bu moo ñu dalal alxuraan mu nekk noonu ñu koy ndokkeel dëkk Kaolack su ko defee biñ demee Saalum Maamor Anta Sali gisee ba suñ tubaab jox ko Samba Lawbe gis jox ko. mu di ko jàngal alxuraan mooy sëñ Sàmba Tukulóor ga mu di ko jàngal xam-xam ndax boobu fekk na mokkal ab diir nag 1886 ci la woy juróom génn àdduna moom mooy soxna jaara génn àdduna ca Poroxaan ñu denc ko fa biñ ci tegee ci déen de 1887 ci la Maba Jaxu Ba daanu ca jihaadan jooja ca somb diggam ak buur siin nga xam ne histoire yu bari nit ñi ñett nañ ko ci bu tox doon jël temps ah gannaaw ba nag buñ toogee tuuti ci la waa wo wat lam jor ne ko nag bu ñu sañoon nga yow jël jël ci sa nguur la jor wax Mamour Anta Sali waajur Sëriñ Tuubaa ne ko buma sa yon ni nga don jappale Maba ci diko atel diko di ci dine ak muy diisoog yow ma sa yon dal ñu and dem nga dimbal ma ci noonu top ko ca top ko ca ba Mamour Anta sene d'accord ak mom ñu and dem buñ Lat Joor sañ ci kër Amady Yàlla Sëñ Tuubaa dem ci wet ga diis tuuti ah, Maamar Anta Sali sañ ci Pataar nekk fa ndax dafa yoroon daara te am jàng laaju fréquentation yu bari bu dem ci wet ga sañ ci fa nga xam ne jot mu ñëw àtteel leen buñ ko soxlaa mu mën a ñëw te du yàgg buñ doxee tuuti nag ci Lat Joor daal di dem sañ ci Sugeer Maamar Anta Sali sañ ci waaw ci sanc Mbàkke Kajoor Mbàkke Kajoor gii nga xam ne yoonu murid fa la sosoo ñu nekk fa ab diir yàggut ñaari at Maamor Anta Sali daal di génn àdduna fekk laata loola comme suñ Tuubaa bi mu tollee ci njàng daf cee amoon positif lool ñett lañ sax benn xissa mos naa am téere bu mu te amu ko bi mu waxtaanee naar bi ko am mu ne ko nag boo ma joxee ñetti dërëm ma jox la ko Sëriñ Tuubaa booba amul lenn lu mu ko mën a jox fekk booba mu ngi sol ay yére yu rab mu am ci benn kër taalibe baayam di ab commerçant bi nekkoon mu jaar sa côté yooyu xam bu ñu ko gisee dañ koo ne ko ah, li nga sol yi nangam daal di ko jox yére yére yu bees biñ ko joxee yére yi dafa jox naar ba yére ya daal di jël téere bi nga xam ne amul lim sol waaye nangu naa joxe ay yére ngir am ci téere kon kooku xam nga ne am njàng amu ci moo tax laata muy dox tuuti rek laata muy am ñaar fukki at moom suñ tubaab fekk na booba mboolem lii fànni xam-xam mu pegal ko boppam ndax sawaroon na si njàng yàlla may na ko ci xel waxoon nañ ne commencé woon nag ci bëggam njàng li mu lay rawee mooy moom lu mu jàng da koy jëfee te loolu it lu am solo la te lu raar la nag boo gisee sax daanaka tarbiya loo ko fi xaw a bàyyi fexe ba euh, sam euh, samp cër nit ki ci jaamu yàlla maanaam jàng ak jëfee mooy dëgg-dëgg tarbiya suñ tubaab daal di ñëw ci waajuram laata mi am ñaar fukki at fekk na mboolem lu ñu war a jàng jàng na ko ba tàmbalee bind téere téere yi mu bind noonu sax boo ko xoolee jamono ji da ngay jàpp ne ko doon bind daa jeexal ak dundam ci xam-xam ndax ay masaalikul jinaan tey ji boo yéree ci yeneen téere ba dellu soit ci masaalik da nga naan lii daal ki ko doon bind juróom ñaar fukki at war na ko def ci xam-xam te boobu Sëriñ Tuubaa bu mu koy bind boobu weesul ñaar fukki at ay Mawaahibul Quddus Mawaahibul Quddus dama koy xool fan yi ba mu yàgg ma ne man daal Sëriñ Tuubaa ndax téere bi boo ko xoolee dangay ngay jàpp ne ku jàng jàng jàng ba dundam bi yëpp jeex ci xam-xam moo ko bind ndax da gis mu wax ci yu sew yoo xam ne même war a xaalta imam Sanusi ñun mi nekkoon sharho bi suñ tubaab waaye ko boo ko fa xoolee doo ko gis mu xoolal jawharu nafis mi nga xam ne lax dëri la ci way te boobu amagul ñaar fukki mu jël jawharu nafis waa dippi ci lax dëri mi nga xam ne wiisar la bii ñu xam dolli ci yoo xam ne boo ko jàngee bu la neexee a yegg ci Cheikh Khalil ndax lépp looy soxla da cee nekk kon bu ñu wax am njàng suñu tubaab jox na ci ay misaal yu kawee kawe kawe moo tax bi yàlla dogalee loolu am ah waaye juróom génn àdduna ca 1880 fekk booba nit ñi tàmm nañ ko ndax bi mu ñëwee moom ngir wane na ndaw daa war a teel a takk ndiggam nekk ci ron ay waajuram suñ tubaa laataam bi muy am ñaar fukki at la ñëw nekk ci ron waajuram wuutu ko ci njàngale mi ndax booba tout tànk la waaye booba làmmañu leer na te lim jàng xam na ko nga xam ne donga yi au lieu ñuy dem ci Mamadou Anta Sali mi yor darsu mag bi dañ ko fa daan bàyyi di ñëw ci suñu Tuubaa ba mujj sax daanaka dongo yëpp ci moom la ñuy jànge moo waral bi Mamadou Anta Sali génnee àdduna daara ji dafa continué ndax fekk na booba nit ñi suñu Tuubaa lañ tàmm yàlla dogal bu ñu nekkee noonu léeg-léeg buur yi daan nañ fa ñëw sax ngir dégg gi ñuy dégg aw turam ak xam-xamam bu la ngir bëgg Mamadou Anta Sali boole koog ñoom ñu ànd dem ci nguur gi Samba nyaay mos na fa ñew bi ñew ni ne am serigne sa doom ji di ahmadou bamba de la bëgg nga boole koog man bu ñew ma jàppee koog serigne mu di ma dimbali sama nguur gi di ma attel di ma xelal ci diin bi loolu amé mamar am serigne woon suñ tubaab mu ñew bi ñew mu wax ko wax ja suñ tubaab ne ko ba mu kon delu ci neegam bi yàlla doole sàmbaloo bi génn dem fekk suñ tubaab ci neeg ba ndax suñ tubaab bi ñew mu ngi fekk sàmbaloo bi ak mamar am serigne mi wëjju suñ tubaab tok ci kaw lal bi biñ ñëwee ci néeg Sëñ Tuubaa dafa fekk Sëñ Tuubaa toog ci der bi di jàpp Sëñ Tuubaa wàcc der bi ngir war ma jox ko Sàmba Law bi ne ko toogal waaye Sàmba Law ñi mujjee toog nga gis ni yàlla di waajalee ay nitam ci xëy ba nga xam ne ñëpp dañ leen di wet ba ci ab buur sax bu ñëwee bokk du ñëwee yow toog te ba ñëw nag ko fekk ma koy jël toog ci kaw mu dellu tubaat ya na ko ba sañoon nga ñëw ma jàppee lépp sëñ di ma dibal ci nguur mu ne ko ndax Sëñ Tuubaa ku am ormal ci way juróom ndax mënoon na koo tontu ci kanam way juróom ne ko ah loolu kat du sama jubluwaay te kon day mel ni li way juróom bëggoon suñ tubaab na ko te bëggut a gàntal mukk lu way juróom bëgg moo tax ndaw lu bëgg yegg fa nga jëm doo gàntal mukk sa bëgg-bëgg way jur bu la santee loo mënul sax jéem ko rek ba moom mooy dem ba xam ne lii mu la sant mënoo ko waaye bëggut it déggal way juróom lu ko neexul mu wax sàmbaloon moom suñ tubaab ne ko dafa am ñu bàyyi seen i kër ñuy jur fekk sama fii ci daara ji ngir wut xam-xam xalaatuma mukk di leen fi نحن نعم نكدت لنوانا ألف نسك ولا عبارة ولا خلوة سفن وهكذا نجوا وتمام وحل بفن ولم أزل منذ عقلت طالبا معرفة بالله جل طائبا فجلت بين العلماء ولولي بيتي وعملي وقولي أمام لولو دفو غني ولا جمال هم سنجوا بس سيف غوغو أك بس بس بي سنجوا لولو دفو غني ولا جمال أه بيواجم جيني أدوني تبس برك سن طائبا موجيتي bi mu jullee ba noppi mu ne Mamour Anta mu ne ana Ahmadou Bamba mu ne ko maa ngi nii mu ne ko danoo bëggoon biñ fi jógee ñu ànd ak yow dem ci buur ba lay jox lar joor nga xam ne sa wëllëra way jur la woon ah ñu jaal ko su ko defee mu teg la fi mu tegoon suñ tubaa ci jotaay ba ndax waxi pénc ci pénc lañ koy tontoo suñ tubaa ne ko li nga wax ci jaara ji de nangu naa ko ndax comme wëllëra sama way jur la woon إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبي حب معه أن يولي عليه الصلاة والسلام نينا بقول لك يجينا رفع تكين باي جناو ما يكجيتو أي كل ريم نجوكلم سوجي بجيتو سي كل ريم نجوكلم سي أي بجيتو سي كل ريم ياي نجوكلم من أكو موتا نافع دم جوكو كل ريم جوجو واي دي واحد مم يمو ما يتك فم تكون سموجي لون لون بكرة مكتشافين أ مالا ما فيك بابا كيلو يبغى نبغى gars yi ne ah, kii xel daa neexut xaaroo sa bi wun kii xel mi neexut yow nguur lu neexee ah nga nekk ci wetu président kat kat yi di la wër logement yi gardien yi loolu loolu loolu neex na loolu ñëpp bëgg nañ ko suñ tubaab neen loolu taxumaa jóg ñii ne eh, ñu ne ah mu ne bu dof demal lii yombul kat er kan li abwaa bi salaatin moom moo koy wax أكنت ساودا ذا وجار دعوت زرني لرائي وزيني إن كنت زازن أكن رزا وجاري دعوت زرني لرائي وزيني سنفال وانك دقلو لسنتبا واخ ديكو جاين أحمد جندل قالوا لي أكمل li abwaabi salaatini taxus jawaisa tuxni kulla ma xiini fa qultu xasbiya rabbi waqtafaytu bihi walastu raadiya gayra la ani wa diini suñ tubaab ne li ngeen may wax dégg naa ko man ci kër buur laa yaroo ndax bi mu dem Maamar Anta Sali boobu daa yees yàgg na fa nekk fa muy juróom nekk ci ma ba joxu ba bi ma ba jox ba daanoo mu ñëw nekk ci Lat Joor 1871 ba 1880 mu nekk kër buur kon kay xam na kër buur mu ne leen lii ngeen may proposé xam naa ko waaye dalul sama yitte dalul sama yitte moom sax daana def même li waajuram nekk ci kër kër buur moom da daan beru daaw mukk di nangoo génn nga xam ne dafa dafa teel a ñeme ak wéetaay te kuy bëgg lu baax te di ko wër foo jaar bi nga ñeme ak wéetaay waye so ne def bu gaay yi nekk nga nekk fa fu télé bi tàkkee nga ñew bam mu bu garam place taxawé nga ñew te bëgg na danaa baax wallahi do dem fenn motax suñu ba alifa nuska wal ibadata wal khal wa tif lan hakatan ni jabaaw ñu baax ñepp noonu lañu mel moy dañuy téla tam jaamu yalla dañuy téla tam abitaay suñu tuba daal di wax gaay ne man dal suma amé soxla xamna ki fajj soxla suma ma wiitoog ñaan ko dina mako fajal waaye ñii nga xam ne seen soxla yi sax mënaguñ koo fajal seen bopp ma bëgg a ñëw leen di samay soxla kon est ce que man yeewu naa Sëriñ Tuubaa tontu leen loolu ah gannaaw loolu nag mu am ca daara ja am at nga xam ne ni muy jëm di doxee lay doxee ah ba 1883 nag ci la nag woote woote mba Ali Sarr Sam feeñu ko ne ko Ahmadu mu ne ko ah, mu ne ko léegi nag njàngaleem kese danga koo weesu ñu ànd ak yow fekk laata loola sax Sëriñ Tuubaa daan léeg-léeg daa nga bind àlliwa indi bu ñëwee topp ko ba mu ba mu wér mu ne ah mbind mi waw na koŋ waaye am na lu ko gën a kawe buñ ko doon mbàkke loolu mu ne fexe ba xalima ya malaaka yi di bindee ca malaw aala nga di ko gën a kawe loola ñu ne ko a ah, mbàkke loola ku ko bëgg a am nooy def mu ne yoonu tarbiya rek nga xam ne daan na junj loola te ba mu wooteegul woote ni gannaaw ba nag ci la ko aleyhi salaam jox ndigal mu woote wa min ajaaib ibni abdillahi salla alayhi bi salaamillahi باق أضاء أرضه بالأولياء إلى القيامة وكل وليا سنته وصانها عن بدع تبشيره خديمه بفضل عين أمره صلى عليه الله في الآل وصحبه وعلاه بأن يعلم المريدين ومن يقبل منه النصح من أهل الزمان عليه الصلاة والسلام نكو أحمدو سنتو أنا بقول لك كم تان عليه الصلاة والسلام mooy digal gim digal ak digal gim digal soppeem bi moy khadimuhu naka fasdaan fasdaan bat bubu la la yàlla waxon ali salaatu salaam ne nabi munako munako ko ah mu fasdaa bi maa wa aad an legi léegi làqatu nga ba fi magna bu na bul faaleet li nga bëgg wax wax ko jeureun mu leer gennal ci pinj bi nga wax li ma la yónni alayhi salaatu wote way sun tuba tubaab it ba ko alayhi salaatu salaam ne ko fasdaa bi maa tuumar dafa génn daal di wote woote ci la nak daal di wax ne képp ko xamne da nga andon ak ñun ngir am jangam kese man yewé ko dem fa jangam kese am képp ko xamne nak nag fi ñu jëm nga bëgg jëm fal yasir bi sayrina wal yaqum bi amrina ah gaay am ño xamne ne ah ñun kat wax deug yalla bay ñu ñëw comme jàng fi ndon dañuy wut fo xamne ne fa am am ño xamne ño tok gaay gars jaayante suñu Adama ngey jaayante suñu Ibrahima sar Ndiagne jaayante suñu Massamba Diop Sam jaayante ñet ñu ño jaayante ci jotaay ba fekk boba ah sin sëñ daam Abdourahmane loolu dafa génnoon bi ñëwee ñu nettali ko mooy mu jaayante noonu la jaayante yu continué suñ tubaab tàmbalee ak ñoom nag tarbiya di leen tàggat di liggéey ñoom liggéey yu métti ndax da lim lim njëkkoon a bëgg ci ñoom mooy génn ci ñoom àdduna dafa am ñeent yoo xam ne suñ tubaab nee na lii fekk nit mucc ci mënta am yàlla summal mahabbatu li ti dunya laha arbaatul arkaani raa kulliha awwaluha al maalu وثانيه الطعام وبعده الكلام وبعده المنام سنتو باغي نتي مسال نينت ني نيو خا مني ليفك نيت موتي تي مونتا ام يالا بس نديك موي بغي علال سنتو باغي نك كو خا مني بروغرام ييب علال فومي وقتاني مو وقتاني علال خا مانا لول جاي دي وانا آه، ني ماغ بوني باي با تي كانم واي علال سنتو باغي نك بو جيلي سي بروغرام ييب ديملو كو فا دو ام غوم يالا خا خنا سي فال نك ني بغي علال بغي يالا واي بغي علال نك موم يالا نانو كو يالا ماي باخنا دي waaw kon bëgg alal suñu tubaab nee na boo jëlee sa yitte yëpp jëmale ko ca doo gaaw a am yàlla waaye koo xam ne saa soo xiifee àdduna tukki koo xam ne lekk rek da ngaa sant ñan nga xam ne yow foo toll bu añ bi xawee naaj sax nga ñëw waaye ana ki togg añ nga joxe dépense ba tey nag maanaam attaqué nga xam ne boo gisee julliwul wala deful lu war a def sa yoon nekk ci waaye lu jëm ci biir bi na fu nga xam ne bu lépp du am jàmm suñu tubaab na kooka du am yàlla waaye wa baax dama xalaat koo xam ne fu dee baa jógee yaa fay gën a gawale kàddu am na ñoo xam ne bu débat tàmbalee dañu fay nekk nekk nekk ba yëfee tas mu daal bu jeexee mu tuxal si ba ca des suñu nee na koo xam ne fu débat jógee nga jóg suñu tubaab nee na doo gaaw am yàlla baax daful mën a koo xam ne da ngay nelaw bay biddanti kuy biddanti nga xam ngeen ne doo am xaalis moom kuy biddanti koo xam ne huit heures wala neuf nga yeewu moom boo yeboo gars yi da jox ne si paas yeeg yooyu waaye yow doo nekk milliardaire doo nekk millionnaire kon biddanti tubaab yi sax nga xam ne bëgguñu yàlla waaye àdduna rekk lañ bëgg duñ bi loolu nañ ko seetlu kon yow mi nga xam ne dangaa bëgg yàlla bëgg àdduna nag kon nag yaa war a njëkk a ñëpp ndax en sens dafa jàngale woon ne nit biir mi da ko war a def ñetti benn bi nga lekk ko benn bi nga naan ko benn bi nga di ci noyyi waaye boo santee jeng wala ñang da ngay jël duy ko ba mu fees nga xam ne boo naanee booy noyyi gémmañ ngay noyyee léegi suñu tubaab nee na boobu baaxul boobu baaxul. kon suñu tuba loolu la ñëkke ak donga yi di leen tarbiyé di leen tàggat ba mujj gi nag ñu mujj nga xam ne danoo am al am al ba lépp lu lore da ni mat ndax fa xay su ma taxaw kal ahad yaxaaf ko min xaw fi kahu kull ahad soo xasee ragal yàlla ba toll ci ni niveau yi lépp loo war na ragal loolu mujj la ragal loolu dina feeñ ci xasee ci kanam suñu tuba ak lor yi nekkoon ci kanam ah gannaaw ba nag la bàyyi ko mbàkke baari waa mbàkke mbàkke kajoor dem Mbacke bol Mbacke bol maamam mako mom moom Amari Ngoone Sabel moko dagalon mamam mam maram maaram mu fi nekk ab dir mbolo mi tambale bari nit gi di wuyisi wuusi bëgg ko lool ah ñu tambale di añane añaanee diko xex ñana ah, ci dafa bëgg nang suñu suuf nangam ba loolu amé nak mu ne diis ñëw ci penku bi ci fa daru salam nekk daru salam nekk ca doxin wowa di tarbié dongay mbolo mi di bari ba mu yàgg mu xam ne mbooloo yu bari na mu daal nag ne diis ci càmmooy ba sanc foofu Touba nga xam ne mooy Touba gii tey xam ne ba mu fay dem Touba kenn mësu ko moom foofa wax nañ ne boobu suñu Touba njëkkee ay gayndee fanaan di leen wër ba bët set fukki la àndoon ba muy dem Touba mu sanc ko nekk fa ak dongo ya ba mu yàgg nit ñi bari mu ne diis nag daal ne comme léegi damaa soxla ab jàng ak jàngale te fu mbooloo ma bari jàng jàngale du fa mën dox léegi nag na dem booba Mbacke Bari ci la bàyyi ko Touba nag ne buy dem ah, day jël Cheikh euh, maam Thierno Fati muy jàngale xam-xam ca Mbacke Bari sëñ Daam Abdourahmane Lo di jàngale alxuraan ji mu bàyyi sëñ Mbacke Bousso fii ci Touba ku ko war a gis jaar ak sëñ Mbacke Bousso mu yebal ko Touba mu ñëw gis ko. ah bi ñu loolu nit ñi sax dañoo mujj au lieu ñuy ñu jaar ci sëñ Mbacke Bousso waaye dañuy def direct suñ ci suñ Touba bi ñu defee noonu tuuti nag ci la noonu tàmbali nag dem ci tubaab bi. naan leen gis ngeen Ahmadu Bamba mii yoon yi gars yi ko jiitoon ma ba joxu baag ñooñu ngi doon dégg yoon yi jaaroon ci la jaar nii ndax bu ngeen demee Mbàkke Kajoor lam fa am kenn xamul nu mu toll ci mbooloo ñëw na Mbàkke Bawol lim fi am kenn xamul nu mu toll ci mbooloo Daaru Salaam gis ngeen Tuubaa gis ngeen ko fi ni ni mu ngi nii Mbàkke Baari bu ngeen yeboo jóg ci moom ah tubaab yi seen xel tàmbalee yëngu ñu tàmbali di bind di wóolu suñ tubaab waaye comme du def mukk amul ndigal buñ ko woowee day lànk bu ñëwee ba lettre yi takkarnaas takkarnaas yi ci la bind benn lettre jox ko sëñ maam Cerno na ko kaay dem yóbbu ko ndar bi mu demee ndar sëñ maam Cerno xaw na faa yàgg li taxoon mu yàgg fay nee nañ dafa ñëw dem mu ñëwee ñu ne ko na koy bàyyi fii bu bu ubbee ñu jox ko mu ne leen bàyyi mukk ci àdduna ki ma yónni kay loxoom wax nañu sax bi mu ñëwee def ne leen yéen gone yi ana ko ci woo sëñ bi te boobu ay responsable ak kilifa la fekk. waaye Sëriñ Tuubaa ñi mu yar fit yu mu def ci ñoom ak pas-pas bi ba gisuñu kenn seen bët yi ba ñooy dem ne yéen gone yi ana ko ci wokk baax ñu tàmbalee kii naa ko tegal fi lettre mu leen dee sama loxo ak loxo kiñ ma yónni wala duma dem ci lañ mujj muy xaar di xaar di xaar ba gouverneur génn mu jox ko lettre bi bi muy ñëw mu ngi fekk Sëriñ Tuubaa génn na këram ba taxaw ci buntu bi bi mu ñëw fa yar na ñëw wax na ne bi mu ñëw nekk Sëriñ Tuubaa Sëriñ Tuubaa daf ko ne cerno mu ko ah mu a ko dara mutuma wax sànqlaay ba doon dox ca tànk ba sax maa ngi ko gis te loolu wax naa leen ne na Omar def na ko nekk na ci Madina di xutba Saariya nekk ca bilaadu Faris nga xam ne ni ñu soree ay kilomètres yu baree baree bare la Sidna Omar nekk Madina di gis Faris fa mu nekk gis ay noonu yu ko war a attaqué mu naan ko yaa Faris yaa fa naan ko yaa yaa naan ko aljabala moytu doj yu maanaam jaaral ci côté doj yu ba kenn bañ laa gis waaw nga xam ne loolu kon gars yi baax yaakaar suñu tubaab ne maam Thierno loolu xew lépp su ko defee Sëriñ Tuubaa nekk ci la génn nga xam ne bi muy génn alayhi salaatu wasalaam moo ko jox ndigalal mu génn wa jaalal muxtaara sallallahu alayhi fi l aali wa man waalaahu lahu xijaaban maanian min darar summa lahu qaalam si laa taxsha xarar alayhi salaatu wasalaam ne Sëriñ Tuubaa kon léegi mën ngaa génn moo tax suñu tubaab bi mu génnee dajeeg noonu ba jeewal suñu tubaab nee na ba ma nekk ba ma dajeeg ñoom jeewal ci la combat bi daal di jeex billahi faaraqtu nasaara jeewali wa xayrihim xataan bi laa tanaawuli nee na waat naa ci yàlla ne bi ma dajeeg noon yi ca jeewal foofa la combat bi jeexee wa xayrihim xataan lu wér laay wax doo xam ne bi laa tanaawuli amul lenn lu ñuy xalaat su ko defee ci lay ànd nag daal di dugg ndar bi ñu demee ndar Sintuba Tuubaa xawna fa yag amna am fa weer ak juroom ñet fan wala weer ak juroom ñeenti fan fekk booba nak Sëriñ Tuubaa tagat na ñim andal ba mom bu demone sax te ñewatu yef yi day continuer ndax fekkam dan na len dan na len ye dan bind dan tomb motax tax xeetu njàngale ne Sëriñ Tuubaa na ku mënta bind jangal na mënta deg jangal na mënta gis ndax lepp lo xamne méthode la bu ñu war a jàngalee alayhi salaam rafaatale ko mën ay nitam mu wax nasani nak ah يندي جنم أخرجتموني ناطقين بأنني عبد الإله وإنني لمجاهد وأي وما قالكم إني مجاهد نعم أنا صادق نحو إني لوجه الله جل أجاهد إني أجاهد بالعلوم وبالتقى عبدا خديما والمهيمن شاهد نين أدين ما جن من واو من اللي كان جن من يين إن دمان نع ونا يلا يلا من واو من واحد دك نين أب جهاد استلا من من واو جهاد استلا واي ينسين قت جهاد أسمى قت جهاد بكو man sama xeeti jaar mooy fexe ba dënn ñi sama nit moo fexe ba tee cee sol tawxiid mooy wéetal yàlla nga xam ne lu ngeen mën a defati ñoom doon faal moo tax bi gars yi laaj ñu war a jàng na nasaraan yooyu dafa am ñeneen nañ leen jox suñuy gone ndax ñun suñu gone noppi nañ si ñoom ndax seen dënn yi yàlla képp a fi nekk suñ tubaa nee naan génn ngeen mané dama da ngeen wax ne ab jihadiste laa wax ngeen deug waye man jihad ji may moy da ngay deugural xam-xam damay samp xam-xam damay fexé ba ñepp jang ba li wara xam ñu xam jihaadu ya nafsin wa sugrin bil xadaayiri tarqur tarkur la alil bariyad jihaadu ya nafsin wa sugrin bil xadaayiri tarqur tarkur la Habib Baye loolu la leen Sëriñ wax moo tax ca ndaw ndax la Sëriñ Tuubaa ne ah xusuuri xalat wal ahlu anni tafarraqat li madxi alladi anhul madixu qasiru mahat mahabbati al muxtaar sayidina ni ko Sëriñ Fallu jànge léegi Sëriñ bi mu nekkee ndar dafa wax ne a ah, xam naa ne day sama kër day wéet na lool sama ñooñ tumuraanki nañ ndax wax naa leen ne fii kuñ fi joxoon plainte donc da nga tiit say bokk danañ tiit te xam nga kala xam nga fu mu jëm yow waaye suñ tubaab biñ ko woowee waxuñ ko lenn luñ koy doyee te waxuñ ko fenn fuñ jëm ak moom moo tax mu ne xusuur yi xalaat samay ngindi samay néeg samay kër wéet na wal ahlu an fa tafarraqat sama ñooñ teqalikoo nañ ndax wax dëgg yàlla magam jëmm nga fekk ko ci biir ay dongam fekk ko ci biir ay ay njabootam fekk ko ci biir ay doomam fekk ko ci biir ay bokkam ak wóolu nga ne ko coppee di yëkkati te waxoo leen lenn lu tax nga war leen yóbbu loolu lu gën a nekk tooñ kenn xamu te boo leen laajoon ba léegi lu taxoon ngeen yóbbu suñu tubaab mënuñ la koo wax moo tax mu ne waaye nee li tax ñu yóbbu ma nag pire nag lenn la mooy bëgg gi ma bëgg alayhi salaatu wasalaam ba amatuma lenn loo mën a sat ko suuf benn bis da ko wax mag ñi da leen woo ñu ñëw mu leen ah diw xanaa bëgg ngeen ma ne ñu waaw diw xanaa bëgg nga mu ne waaw diw xanaa mu ne la mu ne ah man de mënumaa bëgg lenn lu sama borom yàlla rek laa bëgg ak alayhi salaatu wasalaam nga xam ne moom noonu la defoon pexam ba def ko ji moom ji waaye nag woowu ngeen di dégg wala boog dikrun min al baqari al ahliyi tairatan fi l jawi xatta tawaarat fawqa tayyaari aaddu lahu laysan daliyan li fatkihi fa daana lahu wastaada shaxsa mukaabili suñ tubaa lépp luy métti lépp luy fitna lépp luy coona jàppale na daj na ko ci tukki ba ndax wax wut sa gaynde gaynde goo xam ne liñ ko jàngal lenn képp la mooy koo dajee rek fàddal suñu tubaab yi duñ nekkee ndar ñu andil ko ci kaabu gaynde gi waaye alayhi salaatu salaam moo ko wax ne ko imshi laa taxshal xalq ahmadu mu ne ko ah, ne ko doxal maa nekk sa kanam loo seen bu la neexee attaqué moo tax biñ ko boolee ak gaynde gi alayhi salaatu salaam daa dox ci kanam suñu topp ci gannaaw bi gaynde gi sii ne alayhi salaatu salaam dafa góor biñ ñëwee jàpp ne léegi yëf yi war naa jeex suñu tubaab daal fi mu ne nii moom kenn waxut lay waxam bi ñu ubbee ki nga xam ne moo ñëwoon di xool si gaynde gi da koo attaqué ba ko gaynde gi da koo rey moo tax fa daana lahu waaye wastaada cheikh salmukaawili kon suñ tuba loolu daj na ko si ndar waaye biñ defee loola ak yeneen yu bari yoo xam daj na ko fa ci lañ ko naan daal di dugal gaal wala seen bato yi moo la ñëw si Ndakaaru moo la jëm si Ndakaaru caam ah mi ngi fi ñëw bisub alxames booba mi ngi indiwaale koor yàlla dogal bi mu yegg seen fekk jant di war a soog a ah, ba mu ñëwee toog jàpp ne xëy na léegi tey ndog jot ñu woo ko dogal bi demee noonu ñu yónnee ndaw mu woolu ko bi ñëwee néeg boobu ngeen dégg foofa la amee te néeg ba néeg bu yéeme ndax néeg bi xat na néeg bi tàng na néeg bi xasaw na néeg bi lépp lu looy rema bi mu ñëwee ñu dugal ko si néeg ba wax nañ ne biñ ko dugalee bi mu tegee tànkam rab bu ko ci njëkk a sar ba mu ko làmbee dafa fekk ne génn ci kaw te góom boobu noonu suñ tubaab moom la génn wàllu àdduna te weñ mosu cee dal mu dàq ko mukk ci àdduna moom mos sa jàmbat biñ ko dugalee ci néeg ba ba mu duggee nee na ba mu tegee tànk bi loolu dal ko sëñ sa teg beneen bi waaye dafa teg beneen bi foofa la fanaan wax na nga fii laylatul jumaati lañ ko tàbbal ci néeg bu lëndëm noonu yalaan ko làmbal mu làmb daj ay gobar ay jaasi ñu tëj ko foofa dem mu des ah, fa ñaari guddi lekku naanu ci leer yàlla kooku neenu mu am fa ñaari guddi xam ne loolu met na trop loolu kuñ koy mën suñu mboo génne doo doo ko waxat mu nekk fa mu bind zakartu mabita wa zalika amira wa sabuta torat il jihad bil armah nafsi walakin zaba anil al mahi sun tuba dafa wax bis ci ñam su jaxat ne ko am sutu mu ne ko mu ne ko xam nga ne ko mëna muñ la mu ne ko lool mbacke mu ne ko kon de xam nga ne lu mu ne ko waaw منكو إذا ذكرت ذلك المبيتا وذلك الأمير والثبوتا قار إلى الجهاد بالأرماع النفسي ولكن تبع الناس انتوا عنينا ساس سما قدمت النبرك دوما بغلول دجل أبا أرمو ود أي شاد كومبا أكي بومو دم دالتي كون نصراني ويا عليه الصلاة والسلام موي فوق نيما أحمد لين لا تي ديفال موي فوق لين لا تي ديف سوسا بتيغ وون تي لين لا تي ديفال داغا خيب لين لا تي ديف ah waaye li mu ci teewaat si ñaar su jaxte moo yéeme daf ko ne am sotu mu ne ko am ah, mu ne ko lu métti loola ngay gis mu ne ko waaw mu ne ko sallaaw seen jëmm yi rek a tax kon nga xam ne suñu tubaab lu métti li nan nañ lépp suñu jëmm yee tax yàlla xam na ko ndax moom nee na laataa muy dem boobu lépp lu gars yi dem am na ko laataa muy dem xawaytu maa xawaahu saabiquuna wa jaani xawmu raabiquuna nee na laataa may tukki man suñu lépp lu nit di am ci ak mbaax am naa ko waaye damaa ñàkkoon loo xam ne mënuma ko ñàkk mooy kamaalul iman kamaalul islam kamaalul ihsaan mooy ngëm goo xam ne ngëm dootu ko féetee kaw islam joo xam ne islam dootu ko féetee waaye ihsaan joo xam ne ihsaan dootu ko féetee kaw kon suñ tubaab loolu la luut waaye nag bi mu nekkee ndar ah bi mu nekkee ndar gis ngeen métti yu baree bari daal nañ ko fa ci lañ ko nag daal dugal gaal mu war faa jugee wala dem nag moom xamul fi mu jëm waaw war ko war faa jugee rek dem xamul fi mu jëm wax nañ ne ca gaal googa fala ko yàlla xamale na ko ahmadu mu ne ko ah, mu ne ko engagé nga loo xam ne kuñ mos a jaaral lu mel nii da ngay ahmadu mu ne ko ah, mu ne ko yaay xaadimu rasul allamani rahmanu fi safina bi annani xadimu dil madina nee na ci gaar gi la ma sama borom xamale ne ahmadu mu ne ko ah, mu ne ma yow mu ne mu ne ma yaay jër salaam lu waaye war a amati ci alayhi salaatu salaam ci yow lay jaar dem ci moom ah ci la daal di nag génn nag ko daa kii Conakry bi mu fa demee ci la dajeeg benn saalum saalum mu ne damaa déggoo ne da fee war a jaar jëm Gabon suñ tubaab ne ci laa déggee tur Gabon ci laa soo xam ne kon ma nekk di Gabon laa jëm magam jëmm nga génne ko këram di ànd ak moom di jarjale te xamul fu mu jëm loolu lu ko gën a nekk tooñ kenn xamul ko ci àdduna mu waxtaan ak moom waaj na ko dénk ma mu dénk ko laa ilaha illallah ne ko yëgal ne yàlla képp yàlla alayhi salaam mooy ndawam lu waaye bëgg bu ko jaar ci alayhi salaam du ko am ci la waxee ne hadiyati sofat la daa konaakiri lil mustafal maaxi bi laa ji ma defal waa jooju alayhi salaatu wa borom nangu na ko ah ci la daan daal di dem biñ bàyyee ko foofu konaakiri dem na karambasa adhaba amnillahu fi karambasa xablu mubarisi wa anni xalbasa ñu bàyyee ko fa jaar daaw mi daani rahimu ànd daaw mi bi ma arna an tasaaw mi daaw bi mu fay dem suñ tubaab ku bëggoon xet gu neex la moo tax fu mu nekkaan rek daan taxaw parfois di ko xëpp ci ay yéreem di ko xëcc ci ay téereem waaye nasaraan yi ngir bëgg lu naqar suñ tubaab bañ gisee muy xëppoo parfum yi dañ ko ne eh, mu naa ñu ne ko sànni parfum bi nga yor waaye suñ tubaab dafa jaayantoon laataa mu jóg ne ñii may may may àndal de duñ xam mukk li ma bëgg waaye duñ xam mukk li ma bay moo tax luñ ko mos sant da koy def ak lu métti métti doon ne gis na ne lor jaa nii buñ ko ne ay ca ay ca lay wax mu daal di jël sànni ko waaye nee na bu ñu yeggee daaw mi képp ku ma nuyu rek ku dégg na ma nga fa boo ma nuyu rek dama jox bidel parfum ma xam ne li ma waxon te awma ci xaliar ci suuma ci mom la ma yalla fay bidel parfum yu bari ah gannaaw rek ci lañ ba yegg liber wi fofu suñu tubaab dañ na fa yu bari gas nañ fa am kan fexé ba tek ay bant rek lal fa dara ne ko demal tok fee bi suñu tubaab ñëwee bu ñu da naka mok daaji yëpp and dugg ci baam waaye yàllaa ko fa génne mu ci la bindal boppam ne radama rabbi maa aduwiya xafar li darari wa saana ni am man kafar la samay noon gasoon ngir lor ma yàllaa ma ko fegal suñ tubaab kenn mënu ko waxal lu bokk te lim li fépp fu mu jaar moo ko bindal boppam taal nañ fa ak kàmb gu xóot def fa safara laal fa dara ngir bëgg bu ñëwee daal moom na na surox ci safara si rek yëf yi jeex loolu bind nañ ko naarun ta ajjaja hal yumjid tariyahu bihi illa munaji Khalilullah ibrahim safar so xamne ma ngay jax jaxé ta ajja ja ma ngay jax jaxé kiko bindi ne ah waw mucc ci dalaa jaxal mucc gi Sëñ Tuubaa mucc ndax dalaa jaxal wuro la jaxal ndax ibrahim la ka namru defron mo gëna yéme yéeme loolu taxan ay wër yu bari bang ko defare ba jaxal ko lepp lu ko fité kaw boy naw tim ko da ngay dam loolu la namru defaroon ibrahima te yàlla musal na ko ci kon mu ne ko safaraw suñ tuba yi ci mucce woru la jaxal ndax ki musoon ibrahim mo meuna musul musal Bamba mi gannaaw ba nak liber wil gannaaw ndax mu Libreville am na len lu fa xew ndax sun tuba bin na ne yassara lil muna la da liber wil man qada li ma xaaba am kull wal ñu ko ahmad lo fa am mu ne lii qaada ahla min usuda man zahzahal washi wal hasuda sun tuba nee na yàlla ca liber wil daf ma fa jox lo xam ne yu bari bëggoon nañ ko doon ko wut amuñu ko yalla defal mako fa ñu ne ko mu mu ne ahlu badar feñ nañ fofa ca Libreville ngir nappal ma samay non nak suñ tuba ñom dañu jàpp ne lu ko nakari dañ koy def ñu dal di genn ben bis ne di ñew ci sen fi entraînement fek fekk suñ tuba ma nga fa bi ñewé bi ne teul rek dañu gis mbolo mo xam ne ñepp ñëpp nga fas sol lu wéx fas ya weex ñu kaaloo lu weex te ñu suuf nga xam ne seen diggante suuf war naa mat meetar biñ gisee loolu nag ñoom ñëpp dañoo tiit mënuñoo aller ñoo avancé ñu ne ceeb la foofa taxaw taxaw taxaw ba mu naaj ahlu ba daal dem ñu soog a dem nga xam ne seen njiit la dañ leen lii xibaar bi saa su génnee it ñëpp lay rey suñ tubaab bi ñëwee Jurbel laaj nañ ko ne ko ahlu ñoo ñu nga wax ne feeñu noonu nañ waaw ndax ahlu badar ñaar ñaari xeet la woon yàlla ne ahlu badar jullit ñi dañoo xool seen bopp xam ne dañoo néew ci ab lim ñu ne yàlla boo ñu ra joxoon renfort malaaka danañ am ndam istastaxisuuna rabbakum fastajaaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaaikati muddafin yàlla jox leen renfort ay malaaka biñ laajee suñ tubaab waaw comme ahlu badar ñaari façon fa amoon ay nit ak i malaaka ana ñen ñoo la feeñoon foofa mu ne ndax malaaka yaa mu ne axakañ ah, malaaka yaa fa ñëwoon ñu ne ko ma leen moo doon seen jiit ma leen jiite kon suñ tubaa kenn xamul lu mu doon dem naa ba nag dem na làmbar ne làmbar ne yàgg na fa làmbar ne am na fa daanaka lu mat ñeent lu mat juróomi at nga xam ne lépp luy métti boo xoolee yonent yi daanaka ñu ci gën a bari seeni xaal suñ tubaa dundandoo ndax boo jëlee xaal ku mel ni yonent yàlla Yuusuf alayhi salaam nga xam ne aw nit nañ yàlla da ci jigéen nattu ci jigéen yalla dimbalé ko mu ànd yàlla moo ne ah, wala qad hammat bi wa hamma biha lawla an raa burhan rabbi ne ma jax dig dig digg ndaw sa way lu ko war tukki sin tubaab nak nañ ko ci digel ndax bi ñu woyé ben lambe bi tubaab bi demee ba jaxlé ci mom ni ki dal pexe mu xam def nañ ko way mu mënuñ ci am ndam ñu wo ben lambe expert ne ko dégg dañoo bëgg nga xolal ñu jëm ji wax ñu ki ban yoon lañ mëna jaar ba am ci ndam lambe bi ñew jàkkaarloo suñu tubaab di ko xool di ko xool di ko xool di ko xool ba mu yàgg mu génn ñu naan kii mu ne ah ñu ne leen man ci moom dara mu mukk mukk lu ñu def loowu leen ko li yàlla li yàlla bañ kii li fee féexewu leen ba mooy yàlla bu ñëw ba bàyyi ko ba dem du ngeen am ci moom ndam ñu ne ko kon lu ñuy def mu ne leen da ngeen di xool ndaw si gën a rafet ci yéen te ëpp ci ay bagage te gën cee joŋee gën cee bëgg lu bon ngeen boole ko moom ñu dem xool ki jàpp ne moo gën a doy waar ci ñoom gën cee rafet bu ñëwee ubbi néeg bi suñ tubaab nekkoon ba wax ko ca biir waaye ndekete yàlla dimbale ko ci bi mu ñëwee daal suñ tubaab da koo joxoñ xalima ga mu soppee ko am mbott suñ tubaab dëpp ko euh, dëpp ko këll ba mu yoroon biñ toogee ab diir jàpp ne ah ndaw si kat war naa am ndam ñu ñëw ubbi biñ ñëwee xool xool xool gisuñ dara ñu ne ko eh, mu ne ah, ñu ne ko ana ah, ana ki ñu dugaloon fii muy bind rek bañ ko sonalee cib laaj mu joxoñ leen këll ba ñu ne ko waaye yow ba bàyyi li ngay def aw nit ngay wax ay waxi këll nit ni mu duggee ci ab këll biñ toogee ba sonal suñ tubaab ñu ubbi ba ñu ubbee këll bi sax gis am mbott ñu ne ko ah waaye yow bu yow ñun nit lañ fi dugal waaye itam waxal ñu nit ak tànkam gisuñu ko anam suñ tubaab daal di jël xalima ga sëpp ca daaja bi mu ko wittee mbott bi mu soppi mu soppee ko ab jigéen biñ ko génnee na ko ah, waa yow lu xew mu ne li ma leen di xamal daal mooy bu ngeen ma fi duggee bu ngeen ma fi dugalee laa gëj a xam ma nekk ba fii ma taxaw yéen di wax yéen xaw ma woon dara xaw ma sax fan laa nekkoon. kon nga xam ne mboolem xeet yi natt nañ suñ tuba yàlla génne ko ci waaye gannaaw bi ci lañ ko maa yomba maa yomba it suñ tuba am na fa ñaari weer ak ay ñaari at ak ay weer. foofu it doon fu sori foo xam ne fu naqat dem la ba léegi boo gisee ci image yi da xam ne barab bii neexut a dem. su fekkee ci jamono jii nga xam ne dem nañ ba cent ans gannaaw bi la barab ba di raglu kon ba fa Sëñ Tuubaa dem ci daanaka cent et quelque ci gannaaw kon barab bi ana naka la war a na mel kon foofu kuñ fa yóbboon bàyyi la foon rek normalement da ngaa waroon a faam biñ ko jëlee foofa foofa nag ca la wiir wiir sax nekk ndax dañ ko daan yóbbu ci barab di ko déplacé koo xam ne ab bool bool nga mosoo gis ndox daanaka mosoo tukki mosoo yéeg ak gaal ñu di la génne di la wëlbati loolu dong waroon naa mën a faat waroon naa mën a faat ni bu docteur loolu laa àndal a burhaana rabbi yàlla dogal bi ñu ko yóbbee ko miir miir di boo xam ne barab bu sori la te raglu te bëri ñu mën a laraat wax nañ ne yoo ya fa nekk buñ la màttee li fekk dugguñ la doo wér wala da ngay faatu buñ la dugg rek da ngay ngir ngan di yoo ya fa nekk te ànd ak ay tooke ñu yóbbu fu suñ yàlla dogal yàlla may ko kii man lu rëy rëy rëy ndax suñu tubaab moo bindee ne bi ta'allaqa alladina aslamu min jinna asir doona mën la miskinu suñu tubaab nee na bi ma yóbbee wiir yaa yàlla dafa dogal kilifay jinni yi ponkale jinni yi danoo ñëw yeeslu ci man man suñu tubaab ñu ne suñu Musaa mu ne xam naa turi jagja yoroog nabba ayoog dongaam ya kakkana ko kalira koog morom ya askinu xal naa tiiru nuuru tam ki ñi kon nga xam ne fépp buñ mas a taxaw ngir fexeel ko rek yàlla da ko fay génne te bu ko fay génne ndam lu kawe kawe la la ko fay génne moo tax suñ tubaab dundam gi ak li muy jafe-jafe ak li muy métti métti musta jàppal am noonam dara dafa wax suñu am sutu jaxat ne ko am sutu mu ne ko mbàkke mu ne ko loolu ñuy wax fayu day ci samay noon bu ma ko yàlla santoon dama ko man loolu ñuy wax fay ci tubaab yi su ma ko yàlla santoon danaa ko wax mu def ci man li tax nit di fay ndax nee na ko man daal na fa am bilaa man ahmadu sama lépp njariñ la lenn loolu am toog man moo tax wax na ko ñaan yàlla ijaal xayaati nafaa ahli zamani wa gayrihim qatan bi at naaw li yàlla mu ne ko am mu ne ko sama dund gii damaa bëgg lépp nga def ko njëriñal sama jamono def ko njëriñal ñu bëgg def sama jamono moo tax ba mu tukki sax waxoon na ko sababu xaybatiya an allaha araada an anaala minhu jaaha wa an akuna shafian li qawmi wa an akuna xaadiman fi dawl yàlla mu ne ko mu ne dafa wax sax ñi bàyyi gannaaw gars yi ñu ne ah mu ne maa ngi leen yëgal ne lii li tax may génn mooy yàlla dafa ma dencal daraja joo xam ne mënuma koo amee ci loolu waaw la yàlla jox xarit ba ci maqaama te mënu koo jëf natt lañ koy xaymaa moo tax bu la yàlla moo tax li ñu wax balaa laa yàlla nattal dalay natt balaa laa yàlla nattal dalay natt moo tax mu ne gars yi nabbahtukum ma an ala kaddin ba daal lii qabla an araari dan ma abada maa ngi leen yëgal ne lii ngeen di gis ma am ko mu leen di yéem ngeen di coow ak daanoo ko def yëf maa ngi leen di ni daj naa lu ne laataa ma koy am ala kaddin ba daal lii xam la an araaratal maam ngeen mu rëy lii ma am laataa ma koy am lu ngeen xalaat rek jàppale na daj naa ko moo tax suñu tubaab ñaan yàlla na ko sama dund gii damaa bëgg def ko njëriñal sama sama sama ñoñ lii aw sali ladi uridu wan fai bi yel waraa yaa mooni an fai lii aw sali ladi uridu yàlla li ma ne ñaan lépp defal ma ko waaye nag wan faa bi yel waraa na nga jëriñee ci man alawaraa mindeef yëpp moo tax ku yëg yaa ngi jariñu ci ñaani Sëriñ yaa ngi jariñu ci njëriñ Sëriñ Tuubaa Ahmadu Bamba kenn kampi cingit Yuan garam Detu daram Gadu daram Jambar jadah Lai Ahmadu Tuba bimo Kof def konon Lum ko fexel Mu dal dine neen Jël la mujj daan tubaab bi moom ci Ahmadu wax nga dëgg loolu moo ko waxal boppam suñ tubaab moo ne raddali allahu alladi qad faata min al xuyuri wa misaali faata suñ tubaab amul morom suñ tubaab ko njëkk a waxal boppam nee na raddali allahu alladi qad faata min al xuyuri lu baax lu ngeen mës a dégg nit am ko suñ tubaab nee na am naa ko ñu ahmad loolu yéeme ne mu ne am na lu gën yi mu ne ah mu ne yàlla sàkkal ma morom boobu misaali faata man sama kemal si amul bamba faat na musta am ci àdduna moo tax bi ne ah wara fahma ma li cheikh bi maradin law kaan yufhamu maanaahu fahimnaahu awlaahu mawlaahu maa awlaahu mi maradin lillahi lillahi maa awlaahu mawlaahu nee na ah alwara mi ndeef yëpp fa huma maali cheikh bi ma ne li yàlla jox ahmadu ci ay xéewal nee na kenn mënu koo xam ñëpp a lott ci xam ñu ne ah, mu ne waaw ndax lawkaan yu fa mu maanaaw bu kenn doon xam ti tubaab fa him naahu ñun naa danañ ko xam waaye comme ñun def nañ lu ne xëy nañ gont nañ gëstu nañ xool nañ ay mbindam gëstu nañ jëmm ji mënuñ koo xam kon xam nañ ne law lawkaanu yu fa mu maanaahu fa him naahu bu kenn doon xam suñ tubaab ñun naar dañ ko xam ñu ne ko kon lu xew mu ne kon kooku daal bu ngeen bëggee noppal nee leen awlaahu mawlaahu maa awlaahu mi ma den suñ tubaab daal yàllaa ko jox lam ko jox nañ yem foofu buñ bëggee jàmm moo tax borom bi ne ko li dee fi wut lépp ngi tey ji ñi denc fi yow li dee fi wut nekkatul makkaa ki paase ki xaye fu ay ñeel mos a nekk ak barki jóg na fa tey ay xottal dis fépp yow mii am na moo di nga ñaay mu ne suñ tubaab yow lépp nit wut léegi yàlla jox na la ko mi ngi sa loxo moo tax suñ tubaab na sama am na yu ma ci yàlla defal lu mat juróom-ñaar wa fiya sab'u mu'jizatin li rasul qad zaharat wa qablaha fusul te mu'jiza yi si tuwaane la sab'u mu'jizatin li rasul ay mu'jiza ya alayhi salaatu wasalaam lool yàlla defal ma ko qad zaharat wa qablaha fusul bis njëkk mooy suñu tuwaane na man laataa may génn ci la ma yàlla notal samay noonu wax na ko wax naa ko ci gannaaw billahi faaratu nasaara jiwali wa xayrihim xataan daat naawali mu ne xalaba bil muxtaari rabbiyal ada qabla zuhuri laa ulaqi ma ada suñ tubaab nee na laataa may génn di dem ca làmb ja booba la làmb ji jeex yàlla notal na ma samay noonu may soog a génn moo tax euh, ralentissé rek ngay génn gis beneen bi suñ tubaab nee na yàlla may nga ma xam-xamum ñu jiitu wahabta li uluma man taqaddamu wa man taaxaru bi kun yaa akram lu waay mas a xam njëkk Sëñ Tuubaa yàlla xamal na ko Sëñ Tuubaa lu waay di xamaay Sëñ Tuubaa xamal na ko moo ko waxal boppam wahabta li uluma man taqaddamu wa man taaxaru bi kun yaa akram moo tax nee na sama borom may na ma xam boo xam ne bu ma ko doon wut ci ko mos a am moo tax mu ne man buy bind sax man damay bind aktubu naaqala min al lawxi wa min قلمه وفي حروف لم أمن نيانا من مين بند لما يقول جل وعلا ما سد بين موت أم بند سنتوا لين بند سلون نمام داي دفرك بجلي جتة مجلي سوبر ديال جتة أم بند بجلي جتة مجلي بحر بند ديال جتة أم بند بدون سامتا ليو بند وركو من بند ما نعرف سلون نتوي أم توكي بأمور فتنة أمور جانعلي أمور درة أمور لون جلي رك أكيل نم بند سنتوا بدون سامتا ليو بند وركو من بند كم تان لقوا خمدة كم معجزة عليه سار السلام لون يالله دفرك موسى دوبا beneen bi mooy suñu tubaab nee na alayhi salaatu wasalaam day puukaree woo daf may puukaree woo ci mboolem yonent yi daf may yëkkati ba ca kaw nga sama gars yi xool ahmadu ku mel ni kenn amu ci aw xeetam baaha rasulullahi kullu anbiya alayhim abqa salaamay rabbiya bi xurbati ashra sinina bi xedam xaalisatan li wujud wal xedam beneen bi mooy suñu tubaab na képp koo xam ne namm ngaa texe ma bëgg man beneen bi mooy malaaka yàlla yuhibbuni malaaikul baaxil karim li wajhihi maa falaaxin laa yërëm malaaka yi dañ maa bëgg nee na jinne yi gëm ñëpp dañ maa bëgg waaye nee na iblis léegi dem na ba xam ne xam nga loolu kenn mus koo am ci àdduna dem ba iblis xam ne yow mii sa diggam moom dootu combat mënatu ci yow dara jéem na ci yow li mu bëgg lépp te mënu ko am mu ne ayesa warak sax ayesa minnillahu inda jiwali iblisa is naaletuhu biyaawali ayesa rabbi abadan wa huwa al mu'in iblis min ni wa kaza kullu ayn moo tax suñu tubaab biñ ne liya nawaalun yaxabitu nii liya nawaalun bi yaxabitu nii bihi wa kullun zairun li watani suñu tubaab nee na man yàlla may na ma may yoo xam ne képp ku baax ñee nga ma ci bi yaxabitu nii bihi wa kullun zairun li watani ba tax na képp ku baax rek yaa ngi teqali ko fi nga nekk di ñëw Sénégal ngir bëgg xam wala nga gis wala nga xaw a mos ci may yi nga xam ne yàlla may na ma ko kon suñu tubaab ah bi mu demee ba ñëw ci ab tënk bu gàtt gàtt ci la nag mag ñi daan sàkk ci moom buñ sañoon daal ñu am bis bu ñuy fàttaliku ci yow a ah, waaye amuñu woon ndigal ndax suñ tubaab daan def 18 safar jim génnoon saa su 18 safar dellusiwaatee li ko yàlla tegoon ci natt da koy ful tegaat ko nga xam ne 1895 mu bàyyeekoo fi dem Gabon ba 1902 mu ñëw 1903 mu bàyyeekoo fi. dem Gànnaar ba 1907 mu ñëw 1907 mu dem Thiel ba 1912 mu dem Diourbel ba 1921 jàppal ne 95 ba 21 at mu jot yàlla day doublé natt yi ñu teg suñ Tuubaa tegaat ko ko at mu jot da koy doublé. bi 21 jotee nag mu toog di xaar natt yi bi demee ba yëf ya weesu te gisu ko. yàlla na ko ahmadu mu ne ko ah mu ne ko danga dama daan def dix huit dix huit safar saa su jotee ma double natt yi teg la ko waaw mu ne ko léegi natt yi jeex na ay xéewal rek des saa su dix huit safar jotee lu ma la may ren bu déwénee dama koy double mayaat la ko moo tax bis bi sa da nga gis yëf yi gën a jëm kanam rek léeg-léeg nga dégg ñaan crise beeg jamono naqat naa waaye léegi suñu tubaab xamul loolu xamul ndax li ko yàlla yàllaa ko yoral boppam ndax yëf yi bu yàqu na bu yàgg ndax léeg-léeg gis entourage boo xam ne buñ mënoon dara ci yëf yi dana yàqu waaye yàllaa ko tiir boppam moom sax wax na bis dafa ma a laaj mag ñi ana diw ndax bàyyi na fi am doom doom ju góor ñu ne ko déedéet ndax yàlla du maye nangu yàlla du maye nangu diw am na doom ju góor ñu ne ko déedéet mu ne ah barke dem na ci jigéen ña fekk am na am na ku góor sax waaye mag ñi dañ ko waxut mu ne barke barke diw bi dem na ci jigéen ña kon góor yàlla gën gis yàlla may ko ab cër yëg leen ne cër bi day des ci njaboot bi maanaam day des ci day xool kenn ku ko attan mu jox ko bu demee ba amatum njaboot wala kenn at lu ko ba cër ba soog a dellu ci borom jamono mu xool ku mu koy takkal kon suñ tubaab li ko yàlla may bés bu set day gën a yokk ci la waxee nag ne leen ah da ngeen doon sàkku ci man bis bi nga doon nàggal waaye waaye am aw mu ci woon ndigal léegi nag am nañ ci ndigal ci la si sëñ Balla Fally Dieng gannaaw bi dix-huit sama jotee daal di koy jox ndigal mu jox dong yëpp mu jox ko ay xéewal mu dem fekk booba ah sëñ Modou Bousso taw suñu mbàkke bu so joxoon na ko am xar mu jigéen mu waxoon mu wax kam ja ne ko na ma ko dencal ba di 18 soo jotee mu yónni ko mu dem soppi ko am xaaf bu ñëwee nag ci la génne ñetti téeméer ngurdu génne waat ñetti téeméer ñu génn ci ay naan ay kafe ay attaay yooyu ngir sant la suñ ci Sëriñ Tuubaa mu ne bis bi saa su jotee képp koo xam ne sama mbég sa mbég la nang ma sant la yàlla sama borom ndax li ma yàlla defal man lottu naa sant bi ci la wax شغلت بالشكر عن تذكر ما قد جرى بيني وبين عسكر نينا ليغي سما ييتي سما سوخلا موي دي سانت سوما بروم واي نيكو دي فاتلو كو لويس شغلني شكر اله قبل كليتي عن ذكر ما دين من بلا نينا ليغي سما ييتي نيكو دي فاتلو كو لويس واي موي جيما سانت سوما بروم سي خيول يو ماغي سي خيول يو ماغي ييغا خامني دافال نامو ديغي تيغا جيسن موساكا دال دي واخني ا ما واخ لا ماغال غيو ميراسو ba dese woo dara nit ki faraasu mooy bis ba bàmba xëye mbàkke baari tàbbi ci géej la xet moxtal ca amatal sa la wootu jurbel weeru safar tanaa bu leen ma jarfal maay xaadimu rasul fii suudaani maay rambu xarnu bi am ñare màggal bisub Cheikh Bamba moo gën màggal bis bul moom murit nañu koy fàggul màggal gi kenn mën la xiyaas mbootam yi ngir Bamba kenn mën la xiyaas mbootam yi bis bi la làmboone mbirum tëbaski ak tamxarit ak jàmm nga xam ne mbirum tabaski ne nit ak jinne ak malaaka ñëpp ba fay teew ngir dara jaay Cheikh Bamba bis bi réussir nga xam ne bis la boo xam ne Sëriñ Tuubaa fonkoon na ko daan ko dundal la boppam 1921 ba 1927 Sëriñ Tuubaa moo moo koy ji nga xam ne sant di liggéey boo xam ne bu réerée la yàlla dafa wax ci alxuraan ne ñu néew a néew a néew a néew ñoo koy sant Sëriñ Tuubaa woo ñëpp ñu sant la ko yàlla kon daa bëgg ñun ñu bokk ci borom cër yu néew yooyu kon lu ama am solo la di bis boo xam ne nag ko fàttali ko ne mooy 18 safar bi arme bi génnee ndar ñëw jéewal ngir attaqué Sëriñ Tuubaa di nga xam ne bis bi du bisu mbégte bisu fitna la bisu bisam nattu la kon boo fa demee képp koo xam ne dem nga war ngaa teewlu ci ne ah bi mooy bis biñ jëlee woon sëriñ bi ci biir ay dongam jëlee ko ci biir waa këram jëlee ko ci biir ay bokkam te xamul fu ñu jëm waxuñ ko fañ ko jëlee kon loolu buñ ko bàyyee xel yaakaar naa ne duñ fa nekk di puukare du fa nekk di def lu méngoowul a sëñ ba rawat na dëkk booba nga xam ne euh, tabaarakallaahu ay nit yu bëri ak xise yu bëri jaar na fa waaye xam naa ko mu ngi guddi noo ngi sant ñëpp xaw naa guddi waaye tabaarakallaahu gars yi baax yi dañuy dégloo ndax jotaay bi ay tànk rek a nekk te wax naa leen ne tout tànk moom rek la yàlla soxla ndax euh, yàlla musta yónni alayhi dafa wax ne euh, ma baata allahu nabiyan illa shaaban wala utiya al ilma aaliman illa wa huwa shaab yàlla musta yónni ab yëntu lu ne ba rek ndaw lay doon alei saatu salaam ne laqad baasani llahu bil xanafiya assamaha fa xaalafani shabaab wa xaalafani shuyuux nee na bi ma yàlla yónnee ci diina ji ji ba ma ñëwee ndaw ñi darma mag ñi di ma xeex laa xam ni fi dana jàll lépp loo yëkkati ci àdduna ndaw ñi taawu ko mag ñi moytu ko jàppal dana jàll bu ko ñëpp taawoo noo dana jàll waaye ndaw ñi daal saa suñ ci bokkee dina yàlla ku mës yu ne am yonent nga bu ñu xoolee ah, alayhi salaatu salaam dafa déggoon message boobu moo tax ñim daan jiital ci ay mbiram yu bari ay ndaw lañu Mus'ab bin Umayr yi bi ko alayhi salaatu salaam di samp muy nekk ambassadam ci mun Madinatu Munawwara booba 30 ans la am te booba Madina métti na ndax booba aw song fa xasara ja nga fa ñu baree nga fa duñ laale du njaaro taal mu yónni ndaw loo xam ne 30 la war a am dem samp ko fa ngir mu war a régler problème na ko ñëpp di yëkkatee di tegandoo waaye Usaamatu ibnu Zayd ibnu Xaarisa la bi ko alayhi salaatu wa salaam di jiituloo ab xare boobu di seetaan képp la am moo tax léeg-léeg bu nit gëmee ne man ndaw laa waraguma jël responsabilité wala waraguma nangam da nga xam ne kii xamul li xew Usaama bi mu am 15 ans la ko alayhi salaatu wa salaam takkal soxna bi mu amee 17 ans mu jiital ko ci armo boo xam ne ñoo war a euh, attaqué yi tey Italie gii Rome boobu moom la ñuy attaqué nga xam ne magi saaba yëpp a nga boon Abu Bakar a nga fa Omar a nga fa euh, Saad ibn Abi Waqaas ma nga fa Abi Ubayda ma nga fa Ah, xataab bin Nu'man ak magi saaba yu bëri ñi am 50 ñi am 40 mu jël ndaw loo xam ne di ans am jiital ko ci arme bi ne ko yaay jiite arme bi am na ñoo xam ne sax loolu xawule noonu jubu bañ coow ci ba ay saasaam jot ci woote ci jàkka ja ne kii maa ko ne na dox ànd ak ndigalal yàlla lu mu nekk yàlla fekk si ko kon bu ma gisee ndaw yi nekk ci kanam tabaarakallaa ñun ñëpp ñuy ay ndaw ñu war a gën a takkaat nag suñu seen biir bi mu yebal ak ful la jëm fa yóbbu ne la leetar bii sama kilifa jox ma li fekk tegu ko ci loxol kam ma ko joxloo duma génn booba ndaw lool kon nag lépp ma a dox mën naa dox kon na dox asalaamaaleykum jërëjëf dama bëgg ñu ñëw joxal ma ko addiyee borom Tuubaa taabal ji daal laa bëgg ku jàpp ni la nga yore sëñ Tuubaa am na ci wàll ku jàpp ni nag addiyee ji may laaj bokkoo ci na xam ni yow laa ci jiital maa ngi ñaan ci barkeb sëñ Touba ku ma ñëw jox addee borom Touba ma jox ko ko màggal goo ma sa màggal yàlla na ci ren dàq ci dara ji sëñ Touba ma seetaan ma ñeetaan ma kutus addee nag moo ko xeexayam ab ragal du ko joxe ku koy waaj du ko joxe addee moo ko xeexayam laa wax ku koy waaj du ko joxe kaata sax ci sot la bokk loolu la yàlla dogal liggéey sëñ Tuubaa lu la ci waa réewam ba mu koy liggéey mi ngi toog xaalis nag dafa sax ci xol moo tax boo koy laaj danga koy laaj rek te yàlla tax ñu ñëw jox la ko te yàlla tax kon nag maa ngi ñaan ci dara ji borom Tuubaa addee ji maa ngi ñaan ku ci bokk màggal gooma sa màggal yàlla na ci ren dàq